Abdou Samad Diouf maa ngi lay nuyu. maa ngi leen nuyu di leen fay waa Rewmi FM. alors ngay coordonnateur euh, mouvement zéro inondation ñu gis ne mbënd mi fa nga xam ne mooy Touba daanaka euh, dafa jur nag ay mbir yu doy waar ndax am na ci ñetti nit ñoo xamante ne ñàkk nañ ci seen bakkan ci conseil de ministre jiitu réew mi ba Bassirou Diomaye Faye woote na nag ngir ñu taxawal fii ay mesures yoo xam te dina jëm ci wàllu boobule ana nan nga koo jàngatee. waaw balaa ñuy dugg si loolu. ñu maanaam jaal ñi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci xew-xew bi am ci biir Touba euh, di jaal seen njaboot di ñaan suñu borom yàlla na leen yàlla xare aljanna donc euh, loolu nekk na loo xam ne tiis bu rëy la tiis bu mag a mag la donc bépp sénégalais rek donc nekk na loo xam ne tey mbir mi war na mën a nekk sa affaire ndax situation catastrophique la kenn ku ci nekk rek dafa am lu ñuy xaar ci yow nga am noo ci taxawee kon nag ñu ngi jaal famille ñi nga xam ne ñoom la fi seen i mbokk bàyyeekoo te moo nekk loo xam ne ñun ñëpp ñoo bokk ak ñoom naqar bi ci li nga xam ne moo xew à Touba. Euh, li nga wax nag mooy le président de la République jël na ay mesures urgentes pour régler li nga xam ne mooy situation bi xew actuellement au niveau de Touba. mu nekk lu ñuy rafetlu parce que bu réew tollee fi ñu toll kenn ku ci nekk dafa am noo war a taxawee rawatina nag ki nga xam ne moom mooy nguur ji kon nag président bu taxawee kat gis situation ba xew Touba mu nekkat na ci ñëpp dugal seen loxo jël ay services yi nga xam ne ñoom ñoo gérer tout ce qui est problématique sur les inondations ne am leen ci taxawaay na ngeen def lu gaaw déployer ay moyens donc le ministre de l'assainissement ak les les les structures yi nga xam ne dañoo nekk ci ministère bi loolu du ñu def lu dul rafet du ñu def lu dul rafetlu ko kon nag li des mooy comme li ñuy wax le vin tiré il faut le boire. bu ab ndox tuuroo ab bàq des la des nag fi ñu toll yan taxawaay lañ war a am ci yan méthode pour mën a résoudre la problème ci loolu la ñu toll fi ñu toll nii hmm. ndax lii am am na ndax inondation c'est un phénomène naturel la ma yàgg a wax mbiru inondation mbiru suñu borom la bu problème amee nag forcément solution dafa war a am léegi nag solution ya ci nan lañ war a taxawee ci nan yan anam lañ war a jaar pour au moins fi ñu toll ci euh, tembe tembe pour génne ci population bi ci jafe-jafe yi ñu nekk actuellement loolu kon nag du ñu feex def lu dul euh, ànd ak président ci loolu mu joxe comme ndigal mais jàpp nañ ñu aussi yàgg nañ ci nekk ñun ñi nga xam ne tey ay acteurs lañ ñun ñi nga xam ne tey dañoo yàggal nekk ci inondation nga xam ne noor ak nawet du ñu mos a tegg suñu tànk ci lu jëm ci wàllu inondation xëy na nag jëloon nañ ay matuwaay ñu war a jël mais vu la quantité pluviométrique tax na ba vraiment bi ndox mi ñëwee ëpp na loxo mais terewul tak ñu ngi ciy jéem ay pexe euh, nit ñi ñu ngi sur le terrain nelawuñu ñu ngi def seen kem kattan état bi ak askan bi kenn ku ci nekk la nga war a def nga def ko pour génne population bi ci li nga xam ne mooy jafe-jafe yi ñuy dund. malgré nag effort état bi ñoo ngi gis ne euh, problème bi dafay gën di persister pour yow loolu lan moo ko waral. waa xam nga inondation dañoo nekk ci changement climatique jamono ji léegi foo dem ci àdduna bi. gis na ni inondation yi di mel foofu barki démb Mali bitim réew dëkk yi ëpp doole gis nga jafe-jafe ñuy am mais ñun suñu problème li ko gën a indi mooy suñu zone yi nga xam ne dañ fee dëkk dañoo dëkk ci ay euh, zone yoo xam ne place ndox la te li nga xam ne mooy suñu plan d'urbanisation maanaam dañu ko raté respecté wuñu ko nañ ko war respecté nit ñi dañoo ñëw rek dëkk nu leen neexee li ñuy wax ay fàq dëkk léegi nag fàq dëkk yooyu daf ñoo indil ay jafe-jafe ba nga xam ne tey dañoo gis ay nit dëkk bi màgg na euh, nit ñi ñu ngi tabax ba pare mu aadama yi ñu ngi yokk boo xoolee nag léegi bu loolu yëpp boo ko defee techniquement nga jàngat ko ak nappe phréatique bi bu saturé bu ndox mi baree dafay jur ay problème inondation parce que fi ndox mi war a jaar su amul yoon ba mu jaar rek day créer ay dégâts d'inondation te loolu moom moo nekk li nga xam ne moom moo am tey Touba bokk na ci dëkk yi gën a màgg ci àdduna macha allah askan bi mu ngay yeewu donc mu ngay gën a yokku donc loolu nag bokk na ci li nga xam ne tey posé na ay problème fi nga xam ne mooy Touba te Touba dafa nekk tamit ci biir xuur ndax sa heure bi daaw def nañu fa tournée ànd ak le ministre de l'inondation dem seeti travaux ya nga xam ne ay énanchim mu ngi ko fay def mais même bi ñu demee rencontré nañ la xalif général rencontré sëñ Bass Abdou Khadre mais moom ci boppam xamal nañu ne Touba ci xur la nekk léegi nag li nga xam ne moo ko mën a solutionné mooy ñu fexe ba def li ñuy wax remembrement jéem a jël ay euh, déplacer ay famille ndox mi nga xam ne fi mu war a jaar ñu ubbil ko ay yoon ndox mi mën a jàll dem ca fa nga xam ne mooy yoonam hmm. euh, li des aussi ñu defar ay bassin de rétention yoo xam ne dinañ am capacité wu dikk ndox mi parce que boo demee fu mel ni ay kër ñan dem ay euh, ay ndaamaatu ak yenn zones yi di nga gis situation bi fa xew mais nga dem aussi bassin bu mag bi nga xam ne def nañ ko kër kàbb mu nekk bassin boo xam ne daanaka mën nañ wax moo ëpp ci Afrique de l'Ouest mais liggéey bi boo gisee mu yéex dafa am ay problème yoo xam ne nag loolu dañuy ñaan xalif général des mourides mu kën ci dimbale li nga xam ne moom mooy nguur gi parce que souvent projet yi dina war a dem mais déplacement yi ci famille dafay jur ay ay ay ay retard loolu nag dafa nekk loo xam ne lu ñu war a jéem a ut nuñ ko saafaraa la ndax actuellement situation wu Touba nekk na loo xam ne dafa compliqué te nekkul lu ñuy régler ci benn at wala lu ñuy régler ci ñaari at parce que ku xam màggaayu Touba fa mu toll ak la fa nekk ci doomu aadama di fa yeewoo soo fa bëggee régler problème inondation ci moment yi ñu nekk dafa laaj un travail sérieux moo tax tey ma gëm ne nguur gi lépp lu mu war a mën a def pour jéem a fexe génne waa ci jafe yi mu nekk na ci def ay effort mais je pense loolu moom nekkul loo xam ne rek li ma lay wax lu ñu war a def taf yëngal la ndax tàmbali woon nañ ko am na ay effort yoo xam ne am na lu luñ fa jot a def mais lépp yembul loolu moo waral nag tey problème yi nga xam ne mi ngi am Touba mu am yoo xam ne dañ ko war a corriger te loolu yaakaar naa nguur gi mi ngi ciy def ay jéego ñun ñi nga xam ne nag ñun askan bi aussi fa suñu doole toll ak suñu mën-mën ñu ngi ñu ngi koy doxe ñu ngi dem sur le terrain ñu ngi waxtaan ak ñi ñu war a waxal di leen jox suñu point de vue sur la situation globale au niveau du Sénégal parce que boo xoolee la cartographie détaillée bi nga xam ne tey am na la DPG yi def ko ba barki dem rek gis nga ay avancé yi nga xam ne am na ci wàllu inondation radar euh, bi ñu doon euh, inauguré barki démb météorologie bi nga xam ne radar boobu noon tey c'est un pas en avant par rapport ci li jëm ci wàllu xeex inondation mooy radar boo xam ne tey soo bëggee dëkk ci ab bërëb soo ko interroger dina la xamal ne fii nga war a dëkk kat maanaam du dëkkuwaay wala mën na fee dëkk loolu yëpp nag bokk na ci jéego yi du nag loolu rek moom mooy tax mu doy mais lu jëm ci wàllu suñu administration bu ñuy daggati ay suuf nañu seet ci yenn zone yi nga xam ne dañ koy dañ koy dagg parce que boo xoolee Touba li fa xew moo xew Kaolack moo xew Dakar ndax dañuy jël suuf si di daggal nit ñi ci ay zone yoo xam ne ay xuur la woon ay dégg la woon nit ñi amuñu fu ñu fu ñu fu ndox mi amul fu mu jaar nga dëkk fa deux trois ans euh, suuf si mandi bu ko defee mu jur ay problème inondation loolu nag pour mun a am saafara il faut état bi renforcer les services lu mel ni DSCOS nga xam ne ñoom tey ñoo yor lu jëm ci wàllu suuf si ci wàllu ci yëg yu mel noonu kon nag loolu dafa bokk ci taxawaay bu am solo parce que boo xoolee ci conseil interministériel bi ñu wees ci wàllu inondation dama fa yëkkati woon kàdd yu mel noonu wax ko li nga mooy premier ministre Ousmane Sonko xamal ko ne ko bu ñu bëggee xeex inondation il faut que ñu respecter li nga xam ne mooy euh, nit ñi nga xam ne dañuy construire dans des zones non aedificantes sans respecter les normes urbanistiques mu nangul ñu ko joxe ay instructions les services yi nga xam ne ñoom ñoo ko war a gérer ak les ministères concerné pour ñu jéem a jël ay matuwaay ci lu mel noonu mais jusqu'à présent loolu noonu ñu ngi gis ne ay nit a ngi tabax ay promoteurs a ngi ñëw di dagg suuf si cadastre domaine administration bi di joxe suuf si ñu leen neex te du am système d'évacuation des eaux mooy assainissement loolu nag suñ ko réglé wul wax naa ko waxati ko dinañu jël xaalisu nguur gi xaalisu réew mi bu ñu ko defoon ci inondation de problème du du hmm. moo tax dellu nag dafa nekk lu ñu war a stoppé mu laajaat lu ñu war a càmbaraat xoolaat ko ba nga xam ne ëllëg képp koo xam ne yaa ngi dëkk foo xam ne du dëkkuwaay ñu fexe ba loolu ñu mën la ci ñu mën la mën ñu mën la cee daan. ñu gis ne xalif général des Mourides moom tamit jot na ci dugal koppar lu toll ak deux hmm. euh, ci koppar goo xamante ne euh, jëm ci euh, mbënn mi ana nan nga ko gisee. waaw mu nekk lu ñuy rafetlu. di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi te ndax du gulet mu di ko def ndax ba mu ko fi def ci atam du woon situation Touba moo amoon ndax am na fi at boo xam ne mbënn mi Sénégal surtout Ndakaaru sonaloon na leen lool vraiment mu jël koppar bu takko takku takku def ko ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu inondation kon nag tey bu defaatee lu mel noonu ah dañuy wax rek dafa delloo ndaa ci mbatt ma waaw dafa delloo euh, maanaam buum ci boy boy ba mu nekk nit koo xam ne ku ñëpp ñu war a ñaanal la muy sëñ Muntaxa Basiru ndax taxawaayam ci élan de solidarité bi nga xam ne am na ko ci sénégalais yi kon nag ay doomu aadama du ñu amee jafe-jafe ñu am moom mu génnee ci lu ëpp deux cent lu jël toll ci deux cent millions contribuer ko ba pare teg ci ne dana fexe ba ñi nga xam ne dañoo am problème mu seen ndox mi dafa nangu seen i kër ñu tabaxal leen ay kër ca fa nga xam ne mooy Touba Belel pour dugal leen fa ñu am sutur loo fa loolu du ñu mënul def lu dul di ko gërëm ci loolu di ko sant ci loolu te di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi loola lool lool te wër mooy ki nga xam ne mooy sëñ Muntaxa mm-hmm. di ñaan aussi sénégalais yëpp roy ci moom ndax lii am tey di situation catastrophique du mbiru état na sénégalais bu ci nekk jàpp ne mbir mi sa mbiru bopp la kenn ku ci nekk la nga mën ci sa doole ci sa alal ci sa jëmm na jël ko jàppale ko li nga xam ne moom moo xew tey fi nga xam ne mooy Touba loolu baax na trop du ma yem rek sax ci Touba ndax këy na li am Touba am na Kaolack am na ñoo xam ne ñu ngi ci biir Dakar wala yeneen dëkk ci biir Sénégal yoo xam ne ñu ngi ci jafe-jafe yooyu nga xam ne tey waa Touba am nañ ko xëy na nag tey coow li ak problème bi fii Touba la ëppee mais jàpp naa ne élan de solidarité faw mu am ci situation bi ñu am parce que en matière de gestion des e et catastrophes la riposte est, elle communautaire loolu moo tax askan bi kenn ku ci nekk. na jàpp ne lii sa mbiru bopp la moment bi ñu nekk du moment wu politique moment bi ñu nekk du moment wu teesante moment bi ñu nekk ci moment wu ut solution la teet naka la ñuy def pour génne askan bi ci jafe-jafe yu ñu nekk bu ñu weesoo nag ci loolu ba pare nag ñu seet nag ci kanam fa ñu jëm nan lañ war a taxawee créer ay cadre de concertation gën a waxtaanaat gën a xóotal li nga xam ne mooy waxtaanu inondation yaakaar naa suñu ko defee li ñuy mébét ak yéene bi ñu am pour askan bi mën a am jàmm ci jamono ju ñu toll tey nga xam ne changement climatique dina am taw moom faw mu am te comme taw faw mu am faw ñu ut ay solution durable pour au moins mun a soulager population bi su ndox mi wàccee. ñu gis ne Serigne Bass Abdou Khadre moom tamit moo ngi woolu jëwriñ ngi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum assainissement ngir mu tàmbali nag li nga xam te ne mooy travaux yi. waaw xam nga Touba liggéey bi yàgg na tàmbali xëy na nag amoon na ci benn jamono amoon na li ñuy wax rupture. amoon na benn benn moment mu amoon euh, ay problème yu taxoon liggéey bi taxaw euh, bi nga xamee ne ministre de l'assainissement ñëw na yaakaar naa li mu def Touba ci jaabante bari na te loolu yëpp ci utoon ay pexe pour seet naka lañ war a def pour jéem a régler problème mu Touba ba xoolee ren rek ci màggalu ren gis nga taxawaay bi nga xam ne ñëpp am nañ ko moo xam muy Touba ca kanam moo xam muy état moo xam muy population bi acteurs yi association yi ku ci nekk am noo ca taxawee ba nit ñi yàlla def au moins ñu màggal ba ñibbi ci jàmm léegi nag fi ñu toll li sëñ Bass wax wu nekk wax na lu am solo ndax tey fii situation bi tollu il faut ñu jéem a gaawal seen loxo ñoom état bi seet yan jéego ak yan taxawaay lañ war a am pour mën a démarrer li nga xam ne moom mooy les encore les travaux de Touba parce que wax naa la ko ne Touba dafa am souvent luy bloquer les travaux loolu nag dafa laaj li ñuy wax waxtaan jéem a fexe ba ñi nga xam ne ñooy kilifa wu Touba su nguur gi bëgg a def ay liggéey ci biir Touba ñi nga xam ne dañoo dëkk ci place ndox yi te ñu war leen fa jëlee pour ñu déplacer leen mu nekk loo xam ne dafay yomb pour gaawal liggéey bi parce que mbiru inondation dafa nekk processus du da ngay xëy benn fan rek ñëw régler ko dafa am lu mu laaj te li mu laaj na comme dafa bëri dafa dafa lépp luñ ci war a def surtout ci jamono ji ñu toll dañ ko war a gaawal waaw ndax dafa laaj koppar bu bari dafa laaj euh, taxawaay dafa laaj pas te yaakaar naa loolu nag la koy mën a indi il faut kenn ku ci nekk ci sénégalais dugal ci loxoom yaakaar naa li rawatina nag li nga xam ne moom mooy état bu Sénégal moo tax nag li nga ne sëñ Bass wax na ko nguur gi war nañ koo dégg bàyyi ci xel gën a yokk seen taxawaay pour jéem a régler li nga xam ne mooy la situation à Touba parce que Touba aussi waxuma la rek la yeewoo ci doomu aadama mais dëkk la boo xam ne at bu nekk dafa doomu Sénégal adduna dañ fay dajee kon nag dëkk boobu dama jàpp ne tey war nañ fa def daal vraiment loo xam ne. bu ñu eggatee sax ci lu dul li nga xam ne mooy màggal ni ñi mën ñëw màggal ci jàmm dem ci jàmm te nag loolu pour ñu mën ko motal yéene boobu il faut kenn ku ci nekk dugal ci loxoom am noo ci taxawee loolu moo tax nag na nguur gi déglu bu baax a baax li nga xam ne ndax boo xoolee président de la république bi mu demee ziare ji ci màggal bi wax na ko fa nee na mbiru Touba mbiru ndoxu Touba ak situation Touba daf ko def mbiru boppam loolu nag na nekk loo xam ne nag lu ñuy gaawal la ndax dana am solo lool. ci situation bi nga xam ne tey Touba mu ngi koy Samad Diouf jërëjëf muy fàttali rek ni yow coordonnateur u euh, mouvement zéro inondation nga ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi leen di gërëm bu baax a baax waa Rewmi FM di leen jaajëfal ci liggéey bi ngeen di def euh, mu nekk liggéey bu am solo ndax tey yéen a ngi joué seen rôle pleinement sur la situation actuelle ndax yeneen a permettre nit ñi ñu mën a wax seen xalaat. pour ay solution mën a génn ñu mën a seet naka la mën def saafara ko kon du ñu def lu dul gërëm leen te du tey rek saa su nekk yéen a ngi génne ay pexe am taxawaay bu am solo ci espace médiatique bi di def un travail remarquable aussi loolu dañ leen ci war a gërëm sant leen bu baax a baax jërëjëf. jërëjëf.